salaamaaleykum gars yi salaamaaleykum gars yi tey ci seesu angale bi duusu dayukaay bi laa toog def vidéo parce que damaa kontaan ci toj la fa ndayam gi ma a toj la fa ndayu Adji ko na ma ne woo ko ci àdduna bi woo na ma artiste bu ne woo na ne ma jéggalal Adji Mass bu ko laayifal moo tax laayif bi tardé ba am na ñoo xam ne mu leen a xaw a rus nee na dina def vidéo jéggalu patriote yi jéggalu moom moo saaga naan ma waaw bu loolu amee ki ma piégel ba boole maag ma ne ko kenn boolewul ak kenn yow ak mag jee doon wax génn mu ne mag ji li mu wax gën a yées ndax moom nee na Ousmane Sonko du dara Ousmane Sonko nangam nangam audio yaa ngi fii dama ko enregistré lépp mën naa koo teg play live aji maas bu doon ram bay sukk di jëggalu bu leen ko jéggal rey leen ndayam fekk leen ko fa muy liggéeyee ca télé ba ngeen dëgg ndeyam aji maas baaxul guddi baaxul bëccëg gis ngeen li mu wax ci audio yi yépp déglu ngeen ko jaay na ngoram saaga nday Ousmane Sonko tagg Abdoulaye Sylla yéene ko kasa ba mu ne génnagul kasa ba beneen bi mu daan euh, du am dara kat leen ndayam